asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi bokk yi ñoo am mbégte dellusiwaat ci jataay bii nga xam ne jataayub sant yàlla la waaye jataayub liggéeyal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul la muy waajal ngóobum saaño ma nekk ca tooli Lagan. Lagane di daaray Serigne Saliou Mbacke joo xam ne moo ko fi bàyyil Serigne Cheikh mu wéyal liggéey ba di ko fa liggéey loolu nag moo tax ñu toog fii ci këram gi nekk ci corniche fas yéene woote liggéey boobu nga xam ne Serigne bi nee na naka jekk ku ne xam ne ne njabootuk Saalum ñoo ko daan taxawee liggéey bi ànd ak njabootuk Serigne Touba gi ko yàlla booleel. waaye nag amoon na jëwriñ joo xam ne Serigne Saliou ko tànnaloon boppam jox ko daara jooje ca kookee moo di Samuel Sarr mu Serigne Saliou ànd ak sëriñ Youssou Dieng mu ànd ak bokki taalibe bi yii mu toogal nga xam ne mooy jël kàddu ci tuur sëriñ bi su noppee ñu jox sëriñ Moustapha jaxate su noppee ñu jox sëriñ Ndonga Daraame mi wax ci turu waa Saloum kon ni ñuy def dañuy bàyyee kàddu gi sëriñ Youssou moom sëriñ Naar mu wax ci turu njaboot gi su noppee nag daal di wax ci turu sëriñ bi woote liggéey boobu ñun ñëpp ñu maasee déglu ko. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa ngi sant yàlla di julli ci yonante bi di gërëm Cheikhul Khadim di ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mu Serigne Saleh yàlla na ko suñu borom yàggal te wéral ko ginnaaw bu ñu jiitalee ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Xaadimul Xadim yàlla na ko suñu borom yàggal lool te wéral ko suñu kàddu gii nag sabab si mooy waajtaayu liggéeyu ngóobum daaree lagan ñu jàpp ko le 30 novembre muy gaaw tolloo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rakkaati gàmm sëriñ bi nag di ci soññi mboolem taalibe yi yëpp. di woote liggéey boobu muy ngóobum saañoo mi nga xam ni moom lañ baaxoo def ci waxtu wi woote bi nag ñoo ngi ciy jiital njabootuk Cheikh Issa jenn di ci jiital Serigne Cheikh Alim mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Issa ak Serigne Sidi Naar jenn mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Naar Diène ak njabootuk Serigne Naar jenn gépp ak soppi Serigne Naar yéeg mbokki mboolem taalibe bi yëpp ginnaaw bu nu fàttali sunu jàmbaar ji Cheikh Abdou Latif di ko ñaanal sunu borom dolli ko yërmande dolli ko tawféex dolli ko ngërëmu Serigne Touba ak rak ak ak doomam ja Cheikh Souhaïbou bu jenn mi nekkoon xalifa Cheikh Mamadou Lamine jenn ndax waxtu wi daaw fekke woon nañ liggéey bi ñu ne leen sunu borom dolli ay tawféex ginnaaw boobu nag ñu ngi woote tàmbali woote liggéey bi ci tund Njenne Lagan ak li ko wër di wax ni ñi ngi tàmbalee woote bi ci Njenne Lagan Xay Mbayaar man naan Mesere Naarga Téwru Ngaari daaray Siidi Daaru Salaam Daaru Rahman Curangeen ak Cele ak Tayba Xaybarka Baxdaad Lansaar Mbar Touba Njenne bu dee fii ci Touba ñuy woowaa Touba Lansaar ci njiital Serigne Cheikh Diop ak waa Ndande Fall ci njiital Baye Dame Faye ak waa Njabel Gosaas ci njiital Serigne Cheikh Ndak ak Serigne Cheikh Dieye di séentu ñëpp ci liggéey bi nañu leen ci daan séentoo di leen sant itam ci taxawaay yi ko jiitu woon di beral nag ak cant gu jëm ci jëwrin Samuel saar moom mi nga xam ne dafa féetewoo daaree Lagan ab taxawaayantoom rafet ci lool ñu di ko sant ci turu sëriñ bi di ko gërëm di ko ñaanal itam suñu borom gën koo man loo bu baax ndax ku am yéene la ci barab ba ku ne gis na itam taxawaay yamu fay taxaw kon ñu ngi koy sant bu baax ci turu sëriñ bi di sant itam sunu bokkum taalibe Babacar ture ndax ku ne xam na ne liggéey taxawaayam ci taxaw ci wàllu dem bi ak dikk bi ak sëriñ Abdou Lahad Ndiaye transporteur moom itam bokk ci kër gi woote bi nag ab soññee rek la ndax daara ji day barab boo xam ne Cheikh Salihu Mbacke radiyallahu anhu moo ko taxawaloon di fa liggéeyal yàlla bàyyee ko ak sëriñ bi sëriñ bi tam woy woyal jëfi sëriñ bi mu nekk nag benn buntu kër ci tooli sëriñ Touba yi sëriñ bi tam taxawaay ba rafet lool waxtu wi ñu toll nag liggéey ba ñuy sàkku ci dëkkandoo yi ak mbokki taalibe yi ñu ñëw jàpp ci sottal gi ndax gone yi xam ne ñoo doon taxaw liggéey bi war a mën a delluwaat ci seeni njàng kon nag sëriñ baa ngi ciy woo ñëpp di ci xaar ñëpp di ñaan képp ku fa teg sa tànk yàlla sunu borom faj say aajo ci saahir ak baatin wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di ital bi sëriñ Cheikh Ahmadul Xadim moom sëriñ Saliou di mu yàgg fi loolu te te yàgg woote liggéey bi te ñu yàgg ko cee fekk si te day cee ngërëm ak ndimbalam eh, ñu ngi sof sunuy kàddu ci sëriñ Yuusu Jenn mi nga xam mooy jëwriñu liggéey bi di woo mbooleem njabootu njaboot gépp di jiital ci woote bi nag mbooleem lu askanoo ci Mamadou Asta ak mbooleem taalibe yi fu ñu mën a nekk di leen soññ ci liggéey bi liggéey bu ñu fonk la muy ndigal loo xamante ni liggéeyub ngóob la di soññee ci mbooleem jumtukaay yi nga xamante ni mooy moom la ñu liggéeyee biñ ko soññee ci Touba Darou Salaam ji mel na ne feeñ na ci liggéey bi lool ndax duxuma ba gis kenn ku ne awma ngóobaan kon maa ngi soññee bu baax ci ngóobaan yi yi nga xamante ni mooy dagg dugub ji di soññee bu baax ci takkoon yi nga xamante ni ñooy takk dugub ji di soññee bu baax ci saako yi nga xamante nii moom lañ koy teg di ko dajale ndax ngóobum saaño daa bokkut ak ngóobum dugub ngóobum dugub bari na ñoo xam mën nañoo teg seeni loxo waaye ngóobu mu saañu am na ci ñoo xam mënuñu ko teg seeni loxo ay saako la ñuy la indaale di ko ci teg bu dajee fi barab nit ñey takk bu ñu wax bu waxtu takk jotee ñu wëlbati ko di ko takk di mën a yanu ak di takk di di di mën a yanu di yóbbu kon maa ngi soññi sama bopp di soññi mboolem jëwriñ yi di soññi mboolem donga yi nga xam ñoo jaaroon ci kër gi di soññi mboolem mbokki taalib yi mbokki jullit yëpp te xam ne liggéey bu mat bu liggéey bu mat a fa nekk kon mbooloo mu mat moo fa mën a daje ngir liggéey ko ne ko sëriñ bi bëggee ñoo ngi ñaan yàlla ak yonente bi sëriñ bi ñu dajee ci ngërëm ak ndimbal ci barkeb Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah di jiital ci sunu kàddu di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu boroom yàggal ko te wéral ko di ñaanal sëriñ Cheikh sunu boroom guddal aw fenam te wéral ay cëram di fàttali rek li jëwrin yi di fàttali muy liggéeyu ngóobum saajo ca tooli lagan looloo taxa jataay bi ji ci fàttali rek ci turu sëriñ bi di leen fàttali liggéeyum ngóob ba te ni ko jëwriñ ji waxee sëñ Moustapha ngóobum saañoo dafa soxlawoo ay ay ay lu mel ne ngóobaan boobu mu wax ak i takkoon sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp nag te di ci séentu ñëpp te eh, xam le it ne ngóob ma eh, wax dëgg yàlla tool ba mel na nam daa mel kon ñu waajal ko ci pësteef tey ñaan suñu boroom mu defal nu ca tawféex ak taysiir sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp nag mbokk yi ak mbokki taalibe yi ñëpp ak mbokki dëkkandoo ya di ñaan sunu borom indi leen ci jàmm ñu def ko na ko sëriñ bi bëggee te daje ceeg tawféexi sëriñ bi sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp te di ci seen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabil alamin wasalaatu wasalaam. ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di wax ak ci mbirum lu jëm ci ngóobum lagan te saaños maam na ci wàllu oto yi rek la wax noo xamante ni dañoo bëgg suñu mbokki taalibe yi ñun ñëpp nu xam ne noo bokk yéene ji noo bokk bëgg-bëgg bi noo bokk euh, xalaat bi nu mën di jàppalante sort rawatina fii ci Touba fii ci Touba nga xamante ni néewaa na ñu ciy am chargement bu fees jëm lagan su ko defee ñi mën a ànd ñëpp dañuy ànd ndax jàpp naa ni taalibe bu amoon sa oto bopp jëm lagan gis sa mbokkum taalibe mu jëm lagan di liggéey sëñ Touba da ngay am te lool ci yóbbaale ko ndax xéewal gi la yàlla defal ba nga oto kon nag boo oto buñ la jox mu jëm lagan te doo ci def dara nga gis mbokkum taalibe mu jëm lagan war nañoo mën a ànd ànd gi moom yërmande rek lay doon waaye du doon lor ñu jàppalante yi bu ko defee itam ñii bu ñu demee bu ñu ba lagan tam ñu bañ a sori lool lool ci biir tool yi te dal fu jege yoon nga xam ne bagage yee tax oto bi day mën a ñëw ba fi nga dal <coughs> dal fu jege yoon yi oto bi mën naa wàcce yaag say bagage nga dox dem fa ngay liggéeyee moo gën a yomb yanoo say bagage fa ngay liggéeyee di ñëw si oto yi tey bu ko defee tam bu ñëpp maase woon ci bis bi ñuy wax ni sëñ bi nee na départ bi ajuma la ñëpp waaj ajuma ñu demandoo ajuma songandoo ko mu jeexandoo ñu ñëwandoo loolu tam dana doon yërmande lool ci fànn yu bëree bëri ci oto yi ak ci nekkin wa ak ci lépp xam naa loolu lu ñu yàgg def la kon daanaka soññee gi jërul jërul guddal jërul yàggal loolu rek lañ ci bëggoon a wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu leen nuyu di leen siyaar ci turu sëñ Seexum sëñ Saaliw ak kilifaam ay rakkam di nuyu suma mbokki Saalum yi gannaaw bu ma nuyoo suma mbokki kilifa yi toog te jiir ci waxtaan wi te tënk tënk bu gàtt boo xam ne daanaka mën a soon na cee yem sax ñu sax mën a soon nañu bañ a waxaal leneen. wante day fekk ne gannaaw sëriñ Modou Seck mi nga xam ne mooy suñu kilifa moom la sëriñ bi di jox liggéey ci wetu Saalum ga loolu moo ñu nekkal ko fi turu sëriñ Fallou Seck turu sëriñ Modou Seck Alaaji Cheikh Bamba sëriñ Babacar Seck sëñ Cheikh mu sëñ sëñ sëñ Xawsu ak sëñ Dramé sëñ Cheikh Dramé mën na ca uh, baylaa ak yeneen kilifa yi nga xam ne yii nii ñoo ñoo ngi seq digg boobu xam naa lu neex a wax dëkk yee waaye kon yi dëkk yi nga xam ne ñoo ëmb dëkk yooyu nga xam ne ku dégg dëkk yooyu ma wax lu ne ci diggante bi rek nañ xam ne ci ci ci ñooy ëtt bi nga xam ne moo tax may wax mooy lu mel ni li ko tàmbalee kër njang jaar kër Mosuute jaar kër Yoroolu jaar kër Maamuloo ñëw ñëw ñëw ñëw Tayba ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw Sokone jaar noonu jaar ci angale ba jaar Kañmoor ñëw Nganda ñëw Kaffrine ñëw Mbirkilaan ñëw Jaamal ñëw kër Mondoy ñëw kër Njang digg boobu dëkk bu ne ci diggante bi rek na xam ne it woote bi ci moom la tàmbalee ci moom la yem kon nag li ci des alaaji mi nga xam ne moo xam dëkk yi ak ñu ñu ngi ko doon fiqal ak gune yi nga xam ne ñooy taxawu liggéey bu ñu ñëwee ak yéen ñuy indiwaale ak yéen waxoon nañ ko waajee ren dolli woon na ci dolli woon nañ ca matt ndax foofu léeg-léeg mu am matt moo xam ne ñoo ñu koy tanee bu ko oto yi indiwaale bu ñëwee di wàññi dara ku ci am baas ak lam war a àndal ak yi nga xam ne mooy tax ñu mën a toppatoo liggéey ba bu leen bàyyi dara maa ngi leen di gërëm di leen sant lu ci des bu alaaji ñëwee dana ko séq ak sëñ Fallou Gallas Sylla lu ci mat uh, uh, jubbanti ci wax ñu jubbanti ko jërë ngeen jëf ci barke si ñaan sëñ Sall sëñ Seexum sëñ Sall yàgg am ci fitna am ci fulla am ci fayida yàlla leen taxaw jox leen seen i poos ak seen i seen i jëmm ak seen i wër ak seen njaboot barke sëriñ Sall jërëjëf mbokk yi kon woote baa ngi noonu jëm ci ngóobum Saño ma nekk ca Lagan war a doon départ bi di le vingt le vingt neuf ajuma 29 novembre bis ba nekk samedi le 30 novembre dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaati gàmmu kon baaxoo nañ ko def ngóobam saañu lay doon sëriñ bi yëkkati na ay kàddam woote ko ci njiitul nag jëwriñ ji di samiyal saar ak bokki taalibe yi mu ko daa àndal waaye rawatina nag njabootug alaaji Alioune Seck Wanaar ma nga xamante ni moo nekkoon Saalum te ak njabootam ne fa kon bis baa ngi noonu sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla képp koo xam ne teg nga sa tànk lagan wala nga dagg fa aw guub yàlla nga dajeeg lëgëni sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ji nga xamante ni moom la def ci bis boobee ca dëkk boobee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.